ça fait des années te ci opposition bi ñu nekkoon rek di ci yëngu euh, laa ko xamee woon samay idée aussi nekkoon ay idées yo xam ne da ko xawoon partagé. Mhm. donc man dama amoon une place spéciale au niveau de Walfadjri ba léegi sax ñu may danaa ma lu xew ba nga gëj Walfadjri. Mhm. ma leen sama président moo dee waaw loolu rek a tax waaye man ne ma naan yaatale foofu. Euh, Georges Nessa Diop sa collègue là mm-hmm. mom day animer genre émission politique. hein dafa demoon ba day jek jek de woo ma ndax duma ma fa gëj. Mm-hmm. mu bon je t'invite na nga ñëw euh, duel émission bi noonu la tuddoon. ma ko même bu fa joggé yagul muy non non noonu Sidi moo ne ana Dieng. bi ñu parce que. voilà euh, mom il est toujours du du du côté des 100 voix. comme ko doon waxé té du ko doon dund réellement. donc bis bi nga xamné dafa dellu si. Euh, bi mu génnee àddina ak naga sunu xel yëpp mooy di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana hmm. euh, jégal ko bàkkaaram yëpp hmm. yàlla dem ba ci lu doon dewe ci kaw suuf hmm. euh, kàddu yooyu daal laa ci amoon di masu nag waa këram Euh, gis na aussi héritage bi quand même ba tey ça se maintient et mm-hmm. loolu man dama koy rafet lu mm-hmm. parce que en général Sénégal ak africain moom lu seen problème. Mm-hmm. mooy le père fondateur bu disparaître rek presque patrimoine bi. dafay xaw a naax saay mais gis naa ñi mu fi bàyyi. wax dëgg yàlla ñi ngi taxaw te ñu ngi gën a góorgóorlu. donc ñun ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla gën a bàkkee seen liggéey ñu gën a perpétuer la mémoire de ce grand combattant de ce grand sénégalais. qui est Sidy Lamine bi Sidy Lamine euh, Sidy macha allah Madiaw. waaw comme ni ko suñu doyen waxee rek euh, suñu Sidy Lamine moom euh, Sénégal yëpp soxla woon yàlla rek gën donc dañ koy ñaanal rek ndax ñaan dañ lañu dese ci moom mu nekk yow na ko yàlla suñu borom euh, gën a yokkee leer ak way daw li yëpp comme ni ko ni ko sama gars yi waxee léegi les sportifs yi nga xam maanaam képp ki nga xam ne rek génn ngaa doon rek ñu ngi lay ñaanal parce ñëpp ay way daw lañu rek fii ñëpp dañuy dem kon ñaan bi des daal yal na leen ko ñaanal ndax Sidy Lamine Niass ku ko xam-xam ni ku bëggoon Sénégal la génération yu bëri jàng na ci moom ba tey gis ngeen continuité la pour ñu gën a taxaw suñu askan te loolu tamit lu baax la te kilifa diine yi nag foofu tamit maa ngi profité di leen ñaanal suñu kilifa diine yëpp ndax tamit ñu jar a ñaanal lañu ndax ñoom réew mi rek mu leen ñor jërëjëf. alors ah merci beaucoup euh, Babacar. waaw Abdou duñ def du la dellu ñaan laat suñu waajur jooju nga xam ne dafa laaxatu di Sine Lamine Niass mu nekk koo xam ne kenn dul fàtte mu def lu am solo ci Sénégal nekkoon nekk nit austin bu dëggu. ndax si ku ko xam rek suñu bàyyi jooju xam ne waxam ak kàddum yëpp dëggu la nekkoon tamit bañkat parce que toujours mu boo xoolee ay waxam lépp mooy dëggu bi ak bañ bi donc duñ def lu dul ñaalalaat ko fa nga xam ne fa la nekk tey gënal ko fi mu jugee mm-hmm. di ko jaalewaat waa Walfadjri yëpp di ko jaalewaat Sénégal yëpp di ko ñaanal bu baax mm-hmm. te la nga xam ne moo nekkoon mbébétam tamit di ñaan yàlla comme ni ko doyen waxee léegi mu continuer parce que tamit comme num ko waxee Sénégal da nga gis benn mbir boo xam da koy taxawal dem laaxatu rek mm-hmm. mais après suivi bi wala ña koy téye mu dem ba nga xam ne dafay nax saay mm-hmm. donc groupe Walfadjri donc ñu leen di ñaan ci loolu mm-hmm. ñu taxawal ko ba nga xam ne day nekk benn monument wala benn loo xam ne dañ koy xoolee Sidi Lamine euh, Ndior waaw Abdou di ko jooy rek sunu baay ju baax ju tedd jooju sunu baay ju yiw nga xam monument la ci côté yëpp ci diini l'islam ak ci wàllu social gis ci ay bindam li mu bind bëri na trop te héritage la boo xam ni dem na bàyyi ko fi héritage boobu war nañ ko tegaat xool ko ñun ñëpp pour mën cee jàng. Hmm. mu nekkoon koo xam ni abdu daram xeexal Sénégal dafa presque viem am yëpp depuis jeunesse am dafa sacrifié wu pour que rek peuple sénégalais mën a moom boppam. Hmm. mën a dem ci kanam. Hmm. mu nekk un grand entrepreneur.

Seydi moo daan jël responsabilité taxaw wax. Mhm. te bu waxee ñëpp dañ koy dégg. Mhm, sagesse parce que dafa dem incarné sagesse boobu. Mhm. kon yal na ko yàlla yërëm. yàlla yu boole kaag euh, maamam ju tedd jooju maam Khalifa. ñu boole nag. Euh, barzaqul maxtum Cheikh Tidiane mu jox leen Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam am na solo yal na yàlla ful <clears throat> nangu ñaani donc mi ngi noonu euh, ñi dem moom bëgg a dem taxul ñu dem ñu fi toog it bañ a dem taxul ñu euh, bañ a dem taxul ñu toog <laughs> yàlla rek moom mooy soob Euh, ñay jiitu ji yàlla na yàlla euh, donc yeesal yërmande ci ñoom te leeral seen i bàmmeel euh, te tamit gën a yokk ci ñoom yërmande ñi fi des tamit yàlla may leen wér tënk leen ci njub ba keroog ñu leen di fekk ji ñu ci hôpitaux yi yàlla may leen wér bu baax baax ñu delluwaat ci yitte yi ak soxla yi ndax ñetti wara yi dafa am solo mooy armel yi mooy tribunal ak mm, li nga xam te moom moo di kon hôpital yi ñetti barab yi di fa dem dana tax nga gën di dellu ci sunu borom hôpitaux yi yaane yàlla may leen wér amaat seen kattan delluwaat seen itee ñi ci caabi féete ginnaaw amoon liberté tey tey ji ñu xañ leen ko yaane yàlla may leen aafiya ba ku ca sa coobare bopp dugaloon yàlla soppi la jox la weneen doxalin ñi fa natt dugal yàlla ful ko mu di yuyu yàlla defal ñëpp jàmm ndax it jàmm gën jëmaata fu jàmm am jàmmaala dafa am kon